ñu ngi doon def benn formation boo xam ne inscrire nañ ba tàmbali formation bi si réew mi yëpp nag plus de mille personnes ñu soxla woon ay enseignants ñu ñu ne ñu euh, ñu recruter ñu si en si li nga xam ne moo nekk wàllu euh, maître polyvalent arabe yi ak francisants yi nga xam ne ñoo nekk si cadre des bañ ko defee ba léegi bés bu yàlla sàkk ñu ngi siy def ay jéego ba tey euh, fu mu toll ni am na dix mois xam naa président bu bees bi fi ñëw comme dafa digle liggéey. yaakaar naa ñiy wax ne système bi toog muy dox ñii bokkuñu si ñii avant tout ñu ngi jóg di liggéey pour ni ni nga xamee ne euh, xale yi dinañ ko am xam-xam ni ñuy def ba euh, réew mi am développement loolu si nañuy xëy di si gont mais dañuy lancer appel ne monsieur le ministre euh, ak respect Guirassy Moustapha Guirassy ñu ngi lay ñaan lii reprise bi lu mu gën a gaaw dans 72 heures nga woo ñu ñu ne dem leen continuer seen i formation loolu nañ leen di ñaan